secret bi képp ku ko def nga saxal ko comme ni leen koy digalee ci vidéo bi incha allah yàlla sunu borom dana la suturaal ba doo ñàkk mukk loo dundee ci njaboot doo ñàkk mukk argent de poche tu éloigneras la pauvreté dans ta nga am sutura àddina ak sutura àllaaxira incha allah aouzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم assalamu alaikum bokk jullit jàmm bokk taalibe yi dal leen jàmm chaîne chaîne youtube le Coran et ses secrets ñoo ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm te du ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dañ leen àndil secret bu yéeme secret bu am solo lool sax pour képp koo xam ne danga am jafe-jafe am weccit boo dundalee sa njaboot képp ko xam da nga am jafe-jafe say mbir di dëgër lool sax bo defee secret bi comme ni ñu koy digalee allah yàlla sunu borom dana la ubbil say buntu wërsëg yàlla sunu borom dana la sutural yàlla sunu borom dana la wërsëgal Loi fajee say soxla looy dundalee sa njaboot incha allah waaye mbokk yi laata ñuy tàmbali waxtaan bi di leen ñaan rek bu leen fàttee abonné ci chaîne bi bës cloche notification bi bu ko defee vidéo bu ñu mënti dugal rek ngeen bokk suñu koy njëkk jot mbokk di lay yëgal rek ni boo amee ay secret yu la yitte lool te nga bëgg ñu partage ko ak yéen na ngeen ko bind ci commentaire yi boo leen amee aussi ay laaj li ngeen ko bind ci commentaire yi dinañ leen tontu na yàlla fay di la fàttaliwaat rek bul fàttee aimer vidéo bi partager ko. xada am solo lool sax mooy yaatal kër gi yàlla na fay mbokk yi secret bi jëlee nañ ko fu wóor ni képp ku koy def sellal ko saxal ko comme ni lañ koy diggalee si video bi incha allah yàlla suñu borom dina leen defal ay tawféex di kawe seen jot incha allah ñu yow ci bi secret bi nag yomb na lool sax ñëpp mën nañ koo defal seen bokk da ngay jàng fatiha dix fois nga jàng astaghfirullah cent fois jàng salaatu ala nabi douze fois nga jàng yaa razaaxu trois cent huit fois nga daali ñaan sa soxla boo ñaanee sa soxla ba noppi nga jàng vingt et un salaatu ala léegi danga koy def suba si maanaam boo jullee jullik fajar ba noppi nga koy def pendant quarante et un jours successifs maanaam pendant quarante et un jours successifs waaw nga koy def ñu bamtuwaat ko da ngay jàng fatiha dix-neuf fois jàng astaghfirullah cent fois jàng salaatu ala nabi douze fois jàng yaa razaaxu trois cent fois nga ñaan sa soxla boo ñaanee sa soxla ba noppi nga tëjee ko ak vingt et un salaatu ala nabi da nga koy def chaque matin pendant quarante et un jours chaque suba nga koy def incha allah boo ko saxalee sellal ko yàlla sunu borom dana la suturaal dana defal ay tawféex yu kawe si njort incha allah mbokk yi fii la ñu yem ak ba beneen vidéo di leen gërëm bu baax a baax di leen sant di leen di yëgal rek ni kontaan nañu lool sax ndax gis nañu yéen a ngi aimé vidéo yi bu baax a baax. gis nañu yéen a ngi abonné ci chaîne bi moo tax di la ñaan rek gudd fan ak wér ak i xewal yu yaatoo yaatu incha allah mbokk di la fàttaliwaat rek boo amee ay laaj yu la yitte lool na nga ko bind ci commentaire yi boo amee secret yoo xam ngeen bëgg ñu partager ak yéen aussi ngeen bind ko ci commentaire yi nañ leen tontu incha te bu leen fàtte abonné ci chaîne bi aimé vidéo bi partager ko. daa am solo lool moo yaatal kër gi yàlla la yàlla fay wasalaam